Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te Notre force. Le traitement de l'info. Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te Notre force. Le traitement de l'info. Euh, ron benn benn aarif billah dañ koo laaj ne ko waaw euh, yonent bi ak Moussa ku gën Moussa de këlim la yàlla waxee na ko yàlla nangam nangam yàlla fonk na ko mu ne ko Moussa lu ko yàlla wax wasanaatu ko li mu ne ko waaw wasanaatu ko li nafsi yàlla wax Moussa mu ne ko lu mu wax yonent bi salaa sallam daf ne ko inna alladina yubaayiunaka innamaa yubaayiuna allah mu ne ko encore ila man aqaamahu maqaama wasfihi wa man aqaamahu maqaama nafsihi mm-hmm. xam nga ne ñaari martaba yi duñ benn mm-hmm. kii daf ko wàcce wàccuwaayam mm-hmm. moom yonent bi salaa sallam yàlla daf ko wàccee wàccuwaayam moom yàlla ne boo ko joxee loxo mën nga jox loxo boo jaayante moom nga jaayante man wa maa ramayta id ramayta walakin allaha rama bu sànnee sax yàlla ne ko man maa sànni sànniwuloo bàyyi la anhu mi nga xam ne moom moom moo dégg alquran mu ne li muy firi aaya bi laysa laka min al amri shay'un laysa laka min mu ne fu mu fassirul nañoo foog ne aaya bi yàlla def ci yedd sang bi di ko yemale bàyyi ne déedéet déggul yemale wu ko de aaya bi bàyyi contraire bi la daf koy yëkkati daf koy màggal ci aaya bi ñu ne ko ah bàyyi loolu nu mu na demee laysa laka min al amri shay'un mu ne daf ko bëgg wax ne ko amru ko kulluhu amrullahi oh, yow amoo mbir man sama mbir rek mooy sa mbir. Mm-hmm. mu ne aaya ji kat yooyu lay firi xoolal Mawlana Cheikh Ibrahim fa muy déggee moom moom fa muy déggee moom rek moo fay déggee. Mm-hmm. waaye koo xam ne dem nga ba sa mbir yëpp mbir yàlla la amoo sax mbir mbir yàlla rek mooy sa mbir. kooku ni màgg xoolal Ibrahima nga xam ne mooy abul anbiyaa ni màgg màgg màgg yàlla li mu wax yàlla mooy wala tuxzini yawma yub'athuun yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qalbin saliim mom dafa ñaan yalla ne ko bu kéro bu keroogee bés boobu bés buma toroxal daf ko ñaan demandé ko waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mm. mom dañ ne ko yow ma laa yuxzi nabiyya wa walladina maahu mm. yalla mo teub rek ne ko ma yow moom bés penché do fa torox do fa rus do fa seug ñu foog ne foofu la yem mu ne ko ak ñi ànd ak yow kenn ak mom dafa demandé pour bopam rek la tal Ibrahima mi ñu wax ne mooy ëbbul xutbu tawxiid moom dafay dafa sàkku moom ne nañ ko sagal kii nag moom saa mu sàkku ñu ne ko daañ la sagal ba sagalaale ñi nga ànd ak xam nga kon kooku kenn moom sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. moo tax dañoo wax ne alxabib soppe dañ koy may balaa ñaan mm-hmm. waaye xalil nag moom bu ñaanee ñu may moo tax Abul Abbas Marsi Marsi dafa wax mu ne mu ne yonent bi salaa sallam hadiya la ci xeetam bi comme ni ko waxee ala rahmatul muhda mu ne euh, yonentu hadiya la amma ku dul moom ci yonentu yi ci des atiya la yonentu yi atiya la ñu ci des ak may atiyatu nag lil muhtajin <laughs> wala hadiyatu ah, lil mahbubin bokkuñu xeet yonent bi seen mbir lu rëy la te liko taxare moy ku reey ki ñu am muy sallallahu alayhi wasallam motax xet wi nek xet bo xamne hatta musa kalimullah da fay ñe xet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta ak yonentu la kat bok ci dul azmi di mebet bok sax ci xet bi ndax xet wi muju mujj ku ndax ci ñu ànd ak kon dal kooku moy ki nga xamne moy borom wer wi mooy boroom gàmmu gi mooy ki gën a mat ci mbindeefi yàlla yi ci jikko ci bind nekkoon koo xam ne mooy jëmmi yërmande ku amoon yërmande ci mbindeef yi ku wàcce woon oyofoon ku mënoon a sonn ngir nit ñi jëriñu sallallahu alayhi wa yépp mu jox ko jaam yàlla yi di leen gindi di leen xiir ci lu seen boroom gërëm ngir bëgg ñu mucc ci texee di bëgg ñu ci sànjab yàlla ak meram yàlla bëgg ñu am ngërëmal yàlla mën a am ëllëg yërmande yàlla dajeeg yërmande yàlla ëllëg texe àddina texe àllaaxira euh, loolu daal lañ bëggoon euh, indi ko dafa mel ni waxtu wi bu fekkee ne waxtu wi des na kon euh, liñ mën a roy ci moom dafa bëri mm-hmm. ba ci sax doxalinam ak ay soxnaam mm-hmm. ndax ni ni tey problème yi kër yi bëri na sëy yu bari ngi yëngatu te moom jàngale na loolu yëpp ndax am na jamono sayyidatuna safiya bintu xuyay ibnu axtar jotee ak sayyidatuna aïcha ngir wujje rek ba sayyidatuna aïcha wax ko ne ko yow euh, doomi yahud nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci soxna si fekk ko mu mer bay funku kanamam gi xonq cur mu xam ne kii am na lu ko naqari mu ne ko lu xew mu ne ko déggoo Sayyidatuna Aïcha mu ne man yahudiya laa doomu yahud laa loolu ci ne ko daf laa tagg yow déggoo li la wax laa tagg mu ne ko andu ma taggee mu ne ko baab nga wax ne la yow doomi Muusaa Muusaa nga ak baax ñooñu la soxna si commencé di rës ci waaw di rës meral midi gi muy liifal jàmm suwaat kër yi xam nga loolu méthode la boo xam ne wallaahi borom kër yëpp nañ koo ci moom ndax tey jii ñu ci bëri tey bu si ñëwee na la def maa wax lu ma naqat wala ma ko def nga ne ko moo la wax loolu noonu la mel de dafa bon waaye moo dem ca kee soo nga ko ne ko tax na koy wax lii yokk nga kii mer te dem nga moom it taal ci moom safara sa kër yëpp di tàkk mooy ñi nga xam ne yuxribuuna buyuutahum bi aydiihim taal sa kër yàq sa kër yooyu yëpp def ci jàngale nekkoon koo xam ne samaaxa bi mu am jàppandi tamit mën nga cee wax waxtu bi woon jàppandeem moo ne moom wax na ko sax raximallahu imran samxan ida baa samxan ida ishtara samxan ida qada moom mu nekk nga xam ne buy jaay dafa jàppandi ci jaay bi buy jënd ak jaay waaye buy buy fayeeku buy fayeeku bor sax dafay jàppandi buy waaw am na benn ku ko doon fayeeku ñaaw fayeeku ko fayeeku bu ñaaw kenn saxaaba yi bëgg a jóg dóor ko mu ne ko wax ko ne ko da koy sant da koy sant moom mu fayeeku fayeeku ba fet te nga fayeeku te nga wax ma man may fay bor <laughs> wax ji jeex gis nga ni mu oyofee nekk sallallahu alayhi wa nekkoon tey ci problème bi am tey nga xam ne nit ñi koo bokkut ak pas-pas mënoo mm. dëkk ak moom xajowoo ko moom jàngalewu ko ndax ba mu nekkee Medina mën a war a fekk fay Bani Qurayza ak Bani Qaynuqa ak euh, mm. yahud yi nga xam ne bokk ñoom pas-pas ak sax ñi gëmul ate yi gëmul benn dara ñépp la jël uuf leen protéger leen wasiqatu Medina nga xam ne yéen ñëpp jàng ngeen ko daf cee protéger waale ñi nga xam ne bokkuñ ak bokkuñ sax ci ay ay jullit seni hak yep mu sàmmal ko ak seni yelef seni droit ñoom itamit yëpp mën na leen da ngeen ko euh, respecté ndax état islamique bi euh, mënu leen a mënu leen a protéger di leen di leen di leen sàmmal seeni droit di leen jox seeni yelleef te yéen tamit du ngeen sàmmanteeg li len état bi tek waaye mu dund ak ñoom xoolal tey jii nii la ngay gis ci euh, taliban yi mm-hmm. Afghanistan loolu yep boko ko xoolee da ngay gis ne ñàkk bokk pass pass rek xolal jumaa jiñ fi taal bu yàggu hmm. ñaata nit dee ci ngir rek ñàkk bokk te Sénégal gi léeg-léeg gis yoy di fi xej hmm. bokk ma niw tariqa rek wala bokk ñu diine rek tax nga bëgg ko def non bokk ñu kilifa bokk ñu naan way yoy yëpp islam jàngale islam dafa nekkon islam dafa nekk diine ju ubbeeku ju do xam ni dafa bàyyi xel ñepp ñi ci nekk ñi ko ñi mu jaboote ñëpp la jaboté ñi def yëpp ndax mom diiné la jo xamné ni euh diiné yi diiné dafa boo xam dafa ñëw pour ñepp am jamm bu ñëw pour ñëpp am jàmm yonent sallallahu alayhi wasallam tamit nek rahma yermandé mm-hmm. pour ñepp yalla waxu ko ne ko da danga arsalnaaka ilaa rahmatan lil mu'minina mm-hmm. déedéet wala lil muslimina dafa ne ko arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina mm-hmm. wala yoni pour nga nek yermandé ñeel mbollem hmm. univers yi univers yépp da nga nekk yërmande pour yow moom kon yërmande la ah ku wax ne nag man gisuma sama bopp ci yërmande gi ndax gawuma ko ñu la aspirine aspirine la garab la day faj bopp métti ku sa bopp métti nag naa nangoo naan aspirine yaa tànn bopp buy métti rek <laughs> waaye aspirine moom euh, boo ko euh, yërmande la pour yow euh, ah? hmm. waaw bopp yu métti lay saafara kon daal ñu ngi wax ne gàmmu dara lu may. Mhm. dajee di nafat dundam ni ñu ko Cheikh Ibrahim jàngale dundi dundi boobu salaatu di ko tagg mhm. di jàng tagg yu rafet yi nga xam ne suñu eh, ñu baax ñu def nañ moom rawatina ñun moom suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim li bind la nañ sëkk mhm. ndax bàyyilu dara yonentu bi salaatu salaam léppam xamal nañu ko bind ko wax ko nga mën a ubbi kase yi déglu ko mën a ubbi téere yi lii li dess rek moy ci couleur yi ñu fexé ba bañ ko nekk di wax rek mhm. diko répéter duñ ko jëfé ndax tax shar ilaha wala lu ko waji waxé wa وانت تظهر تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري بالقياس بديع لو كان حبك حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع معناه bëgg naa yàlla gëm naa yàlla te waxtu wu ne yaa ngi mooy yàlla woy euh, kii bi woykat bi mu ne loolu doy na waar waaye bëgg naa yonent bi bëgg naa yonent bi te doo ko roy salaa sallama tamit bëggeel kenn du ko mën a dëggal bëggee bëgg yonent bi salaa sallama ba lañ ko mën a dëggal mu a mu fekk nga koy roy di teet lam doon teet bëgg lam doon bëgg lim digle nga nekk ci lim tere nga bàyyi ko jikko bi rafet ni nga jikko kon yàlla nañu yàlla euh, dolli cofeel ci moom salaa sallama te takkee ñeeg Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne nii takkandeeram la takkandeer yonent bi salaa sallam ku ngëp ci moom rek yaa ngi ci yonent bi salaa sallam ku ànd ak moom yaa ngi ànd ndax moom tàkkali ko moom moo ila saara xewu naa si waraawu waaye xale yow man fa masiru baax du ñu ngi ñaanal ñëpp gàmmu jàmm yàlla na yàlla mottali ñu liggéey bi te nangul ko ñu ci defaru àddina defaru àllaaxira dëkk lu am yoon tudd xerin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa